mbokk yi alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi dellu santar suñu boroom subhanahu wa taala mi ñu wërsëgal ñu dajawaat ci ab néegam fas yéene jël benn bind ci li nga xamee ne nii mooy wàllu fiq ñu ciy sukkandikoo ci téere bi di risaala bu ibnu abi zayd alxayrawani rahimahullah toppoon nañ ko ba yegsi ci ñeen fukkeelu bunt bi muy baabun jumalin min alfaraidi wa sunan su dee ne da nga yor traduction bu xonq bi yaa ngi ci page cent quatorze bi bu dee da nga yor samaru daani bi yaa ngi ci page six cent soixante quatre ci deuxième ligne bi fi muy waxee ne wa amara bi akli tayibi wa huwa alxalaal Samarodani 664 ca fin deuxième ligne ba wa amara bi akli tayyibi wa huwa alxalaal kon mi ngi noonu su dee bokk nañu ko gis borom téere bi rahimahullah day wax ne wa amara bi akli tayyib suñu borom day daa digle ñu lekk lu teey wa huwa alxalaal ca loolu mooy lu dagan falaa yaxillu laka an taakula illa tayiba ay waay julit xamal ne du dagan ci yow nga lekk lu dul lu teey wala talbasa illa tayiba doo sol lu dul lu teey wala tarkaba illa tayiba doo war lu dul lu teey te mooy lu dagan wala taskuna illa tayiba doo dëkkee lu dul lu dagan wa tastamila saaira ma tantafiu bihi tayiba nga jëfandikoo lépp looy jëriñoo mu nekk lu teey wa min warai zalika mushtabihat gannaaw loolu nag lu lënt moo fa nekk man tarakaha salima ku bàyyi lu lënt lënt day da nga mucc wa man axazaha ku jàpp lool nag kaana ka raa'i xawla alxima ku mel noonu day mi ngi mel ni koo xam ne day sàmm ci gannaaw ab ñàkk yushiku an yaqa'a fiihi am nañu njortu ci mu tabbi ca loole loolu mbokk mi ngi noonu kon mbokk ki day wax ci yàlla li mu digle ci suñu borom mu ne yaa ayuha allazina amanu kulu min tayibaati ma razaqnaakum ay yéen jullit ñi lekk leen ci yu teey yi ma leen wërsëgal lu teey mu ne mooy lu dagan te ji wa demoon fekk xarum jàmbur xar day dagan na waaye joxulu ci ndigal nga rendi ko lekk loolu ngay lekk teeyul mi ngi noonu doonte ne it lu teey bokk na ci lu dul lor ca mooy xar moomee ci boppam soo xëyoon fekk mu faatu mu dee amoo droit lekk ko kon fokk mu dagan fokk it mu teey doon lu ñu mën a lekk moo tax mu ne yow jullit xamal ne du dagan ci yow nga lekk lu dul lu teey mbokk lekk lu teey day tax ngay mën a def lu baax mi ngi noonu day tax ngay mën a def lu baax day tax yàlla nangu say ñaan loolu moo tax ki ñu duppee jàkke ji ñu toog di Saad ibn Abi Waqaas dafa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dama bëgg nga ñaanal ma ngir su ma ñaanee yàlla nangu yonent bi ne ko fexeel ba lépp looy lekk rek mu doon lu teey yàlla dana nangu sa ñaan suñu waxee lekk nag dafay ëmb lépp lu ñuy jëfandikoo looloo tax ba mu ne xoolal li ngay sol lépp dafa war a doon loo xam ni lu tey la imma doon loo xame ne nii alal jën ko jënde dafa dagan waaye mu doon it lu dagana sol masalan julit bu dee góor amoo droit takk ay jaaro or amoo droit di takk ay chaîne ak i lam amoo droit di sol soie naka noonu jigéen ñi it mayuñu leen ñuy sol yëre góor jigéen mayuñu ko mu sol yëre jigéen kon ah góor mayuñu ko mu sol yëre jigéen loolee kon mbir mi fokk bala tey day doon lu daggan ci moomeel gi daggan ci jëfandikoo gi mi ngi noonu lañ la waxoon sànq ca xarma yow nga fekk mu faatu bu dee moomeel moom daggan na ci moomeel sam xar la waaye nag arab na ci jëfandikoo ndax medd la loolu it la ñuy wax ci yére ya loolu la ñuy waxee ci dëkkuwaay la nga xamee ne nii doomu aadama bi da koy dëkkee bu mu nekk mukk loo xam ne nii alali jàmbur la joo xamee ni nii joxu ko ci ndigal fokk mu doon loo moom wala luñ la jox ndigal loolu la ñuy wax ci lépp loo xam ne yaa ngi koy jëfandikoo da nga war a xam ne lii dafa war a doon loo xam ne imma yaa ko moom wala ka ko moom moo la ci jox ndigal looloo tax ci saanu alal da ca gën a tedd mooy li nga liggéey moom ko wala loo xam ne nii da nga koo donn wala loo xam ne dañ la koo may wala loo xam ne dañ la koo sarax loolee da ngay gis ne mooy cosaanu moomeel yu dagan yi mu ne nag bu ñu paasee lii dagan am na lu ca topp mooy lan mooy lu lënt avant ñuy yegg ci lu xaraam julit moom lépp lu mu xam ne lii xaraam na loolee moom julit da koy daw bépp julit bu diinam ñor lu mu xam ne lii xaraam na loolee moom da koy daw ci ci wàllu lekk gi dana la ci limal ab lim ci lu xaraam loolee mu des nag loo xam ne lënt la xaalis bii kat yaa ngi sikk sàkk waaw ndox lii man am naa droit lekk ko wala awma droit lekk ko dëkkuwaay bi yére bi moomeel gum mën a doon lépp loo xam ne yaa ngi ciy sikk sàkk mu ndax lii dagan na ma am daganul islaam danaan la bàyyi ko mooy la gën yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ca xadiisu Nu'maan ibn Bashir bu siiw boobee bokkoon na lu mu ca doon wax mooy képp koo xamee ne nii moytu na lu lënt yi dana muccal deram dana muccal diineem waaye koo xam ne lu lënt moytu woo ko yaa ngi mel ne ko ñëw fekk benn àll boo xam ne walla benn tool rek boo xam ne nii tool baa ngi nii yow nga ñëw indi sëg jur ñi war tool bi di for mu ne loolu ku ne xam ne ne ni jort nañ lool jur gi dugg ci biir tool ba looloo tax ba kon lépp lu lënt sori ko waaye bu dee lu lënt nga jëfandikoo ko rek fokk da nga dugg ci lu xaraam loolu kon lay wax ci wàllu googe nga xam ne nii wàllu bu yaatu yaatu la ñu ngi noonu dañuy jàng buluxul maram waxoon nañ ci lu bari ca xale yi jàng it nga la waay nañuy dellu ci li ñu tudd subulu salaam bi sharxa buluxul maram da nga fay fekk mu wax ca loo xam ne nii jege na su ma jumul ñaar fukki page ci hadis bi rek te lu bari bari lu doomu aadama di jëfandikoo fekk ay lënt la waaye daal yow julit yonent bi alayhi salaam dañu joxat benn règle da ma yaribu ko illa ma la yaribu ko lépp loo xam ne lënt nga ca ba ko del jëf loo xam ne benn lënt amu ca loolu mi ngi noonu suñuy jël beneen bind mu ne wa xarama allahu subhanahu akala almaali bilbatil noo nit la yàlla araamali ñuy lekk alal ci neen wa min al baatil xasb bokk na ci neen mooy jël alali jàmbur ci force wa taadda ak it jéggi dayo ci moom te mooy agressé ko rek ba mën koo jël wal xiyaana walla wor ko ci ba nax ko wor ko wa riba ak riba wa suxtu suxtu buñ ko boyeli day ëmb lépp lu xaraam doonte ne buñ ko booleeg lu xaraam day nekk nger day taxaw place su nger wal ximaar ak carte wal xërër ak wor woo xam ne nii da nga nax nit ki wor ko mooy jaay ko lu baaxul wala lu demee noonu wal riche riche it soriwul loolu mooy nax nit ki la nga ko won ca la ngay jëflanteeg moom safaanoo nag la nekk ci biir te waxoo ko ko wal xadia ak naxante bu mu mën a doon wal xilaaba xilaaba boobu mi ngi gën a nekk ci nax nit ki ci prix ba ngay jaayante ak moom ala kulli xaal mbokk baat yi mu wax fii yépp daanaka day duggante ci jullit war koo moytu li ci jiitu mooy jël alali nit ki ci doon ci force na doon këram nga nangu walla ab toolam walla ab warwaayam loolu ku ne xam ne ne baaxul agressé it ku ne xam ne ne baaxul nax nit ki imma leb ko bañ koo fay mu wóolu la jox la nga war ko yooyu yëpp da ngay gis ne baaxul mu def ci loo xam ne nii la nga xam ne mooy riba riba it baaxul jullit du ko jëfandikoo te bokk na ci riba mooy lépp bor boo xam ne dafa nekk riba heure boo demoon tey lépp cent mille déggee boo koy fay cent dix mille ngay joxe comme li xew ci banque yi cent mille boobu dagganu la ndax nim ñëwee ci yow dafa xaram gannaaw ba nger nger moom mi ngi noonu mooy corruption bu mu mën a doon rek loolu it gis nañ ne baaxul bu dee ximaar wax nañ ko sànq muy bépp façon carte te mooy lépp loo xam ni mën nga caa dugal gañe ca perte ca te lu ci gën a bari tey mi ngi gën a tasaaroo ci téléphone yi yàlla nattoo dañ naan la tey day sélectionné nañ la am nga chance boo yónnee lii rek da nga am lii ñii di la dig ay millions ñii di la dig lu kenn xamul loolee mbokk jullit bu ko xeeb même bu doon cent franc la bu ko xeeb boo ko ci dugalee boo pertee def nga lu xaraam boo gañee def nga lu xaraam loolu it la ñuy wax ci bépp façon lor yi ba ba lor yépp bokk jeex lii mbokk la wax ci wàllu googee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax ne ayuma laxmin nabata bi suxtu fa naaru awla bihi képp koo xam ne nii li tax nga am yaram mooy lu xaraam ngay lekk nee na yaram boobu safara moo ci gën a yey lu waral loolu mbokk lekk lu xaraam dalay tayel loo ci def lu baax sawar loola nag ci mooy yàlla ngi noonu amaa boo góorgóorloo doo lekk lu dul lu dagan loolee dalay sawarloo ci def lu baax te it dalay tayalloo ca la nga xam ne nii moom mooy ak mooy yàlla su dee dañuy jël beneen bind mu ne wa xarama allahu subhanahu akalal mayta yàlla day araamal na lekk medd wa damm araamal na lekk deret wa laxmal xinziir ak yàpp mbaam xuux wa ma uhilla li gayrillahi bi ak lépp loo xam ne bañ koy rendi yëkkati nañ ca weneen tur bu dul turu yàlla wa ma zubiha li gayrillah ak lépp lu ñu rendi ci yàlla taxut wa ma aana ala mawtihi ak lépp loo xam ne ni dimbali na ca deem ga a taraddu mooy a taraddi mooy jóge ca kaw daanu ci suuf min jabalin ci montagne wala étage wala lu mën a doon aw waqza bi asa wala loo xam ne dañ koo dóor yat ca bopp ba asome ko aw xayriha na doon yat la wala xeer la wala lu mën a doon mi ngi noonu wal mun xaniqa ak lépp loo xame ne nii dafa doon lu ñu xoj bi xablin ci buum aw xayrihi wala leneen lu dul buum illa an yuttarra ila zalika lu dul xanaa nga loru ci loolu kal maytati lu mel ni loo xam ne nii lu medd la mi ngi noonu wa zalika loolu nag mi ngi doon loo xam ne lu ñuy araamal iza saarat bi zalika su dee loolu yóbbu na ko ila xaalin la xayaata baadahu ci xaal boo xam ne dund ñeelu ko gannaaw loolu fala zakata fiha ci nga xam ne kenn mënatu koo rendeeti mi ngi noonu mbokk kon day wax li yàlla araamal jullit muy yàpp mbaam xuux loole xeet bi yépp dëppoo nañ ci ne dafa xaraam middi it dafa xaraam xanaa lu dul la tey yonent bi alayhi salaam génne mooy middu jën loole dagan ne jurit lekk ko dem nga géej fekk fa jën boo xam ne jën bu dee la dagan na nga lekk ko lu ci bari ci mbaal yi sax la ñuy génn ci jën yi dañuy dee bu dee ñi yàlla na it seexlu ñu ay njéeréer ki soccet loolu bu méddee it bu la neexee jël ko lekk mi ngi noonu la nga xam ne mooy deret bu tuuroo ci luy dund xarlaam naglaam lu mu mën a doon loole da ngay gis ne dee su ko lekk la nga xam ne dañ koo rendi muy tuuru ca baat ba dee su ko lekk amma deret ji nekk ci biir yàpp wi loolee moom dagan naa lekk képp koo xam ne nii dafay rey bi muy rey mu tudd beneen tur bu dul yàlla loolee kenn du ko lekk képp koo xam ne yaa ngi reyal leneen xërëm la wala lu mu mën a doon fekk leneen a tax nga koy rey loolee même bu waxee turu yàlla it kenn du ko lekk loolee ñu bàyyi ci xel bu baax li nga xam ne dafa jóge ci kaw daanu ci suuf daa di dee loolu kenn du ko lekk li nga xam ne dañ koo assommé mu dee dee su ko lekk xar mi nga yeewu fekk buum gi xot na ko ba mu dee loolee kenn du ko lekk xanaa lu dul nag yow bi ngay ñëw fekk dee yeewagul yow yaa ko rendil sa bopp bu dee yaa ko rendil sa bopp te fekk ne moom deeyagul su boobaa loolee dana doon loo xam ne nii luy dagana lekk la mi ngi noonu su dee da ngay jël beneen benn mu ne wala ba'sa lil muttar dara nekkul ci kii xam ne nag dafa loru an yaakulal maytata mu lekk medd wa yashbaa mu lekk ca ba suur wa yetazawada mu daadi cay ut ab yóbbal fa in istaghna anha tarahaha su demee ba am leneen lu mën a lekk mu sànni ko wala ba'sa bil intifaai bi jildiha dara nekkul ci ñu jëfandikoo deru la nga xam ne daa medd isa dubira su dee ne dañ koo wulli am na ñu koy tuddee naxu ne xawma ci ça dépend ci région yi ala kulli haal mooy der boo xam ne dañ koo jëfandikoo wulli ko ba mu nekk lu wow wala yusalla alayhi waaye nag mu ne der bu mel noonu kenn du ca julli wala yubaa ci kenn du ko jaay mi ngi noonu mu ne wala salaata naam mu ne wala ba'sa dara nekkul nag bi salaati ala juludi sibaa ci ñu julli ci kaw deru njaa àll yi iza zukiyat su dee dañoo rendi njaa àll ba wa bay iha mënees na ko it jaay wa yuntafa'u bi suufil mayta daan jëfandikoo lii di leenu la dee wa sha'riha ak karawam ga wa ma yunzaxu wa ma yunza'u minha fil xayaa ak lépp loo xam ne dañ koo dindi ca moom fekk ne ma ngay doon di dund wa ahabu ilayna an yuxsala bokk na nag loo xam ne bëgg nañ ko mooy nañ ko raxas wala ñu ko jëfandikoo wala yuntafa'u bi richiha waaye nag duñ jëfandikoo ay donqam wala bi qarniha wala ay béjjénam wa azlaafi azlaafiha ak la nga xam ne nii mooy ay weyam wa anyaabiha ak la nga xam ne nii moom mooy ay sellam wa kuriha al intifaau bi anyaabil fiil naka noonu it sip nañu ñuy jëfandikoo li di sell yee génn ca ñay ya mbokk kon day wax fii rek ki nga xam ne dafa loru nekkoon ci tukki masalan amul lu mu lekk ba baa gis benn médd mu ne su boobaa mën na caa lekk mën na caa lekk ba suur mu ne it mën na caa dagg yóbbaale ba baa muy gis leneen lu dul loolu mu dog koo sànni lu mel noonu it la ñuy wax waa ji nga xam ne dafa nekkoon ci kaso wala leneen amul lu mu lekk lu dul lu xaram lañ koy indil dara nekkul ci mu lekk ko mu ne nag bu dee ne dañoo amoon fii tey xar mu faatu mën nañ ko fees jël der bi daal di koy wulli weer ko ba mu wow mu ne su boobaa mënees na koo jëfandikoo ci lu nekk waaye kenn du ci julli ca kenn mënu koo jaay loolu nag wax la ci wax yi borom xam-xam mariki yi waaye boo delloo ci jumhurul ulama ñoom dañuy dellu ci xadis ba yonente bi alayhi salaam waxoon ne ayuma ihaabin dubira faqad tahura bépp der boo xam ne dañu ko wulli der boobu làpp na kon mënees na caa julli mënees na koo jaay mi ngi noonu donte ne borom xam-xam yi am nañu ixtilaaf ci li nga xamee ne ni moom mooy deru njaa àll yi donte ne moom nee na lii di njaa àll yi mooy gaynde yaag segg yaag yu mel noonu su dee dañ ko war a fees ko der ba mënees na caa julli mënees na caa mënees na koo jaay ñu ngi noonu loolee lay wax ci wàll googee mu ne it da ngay gis ne ki amoon xar mu faatu wala leneen mënees naa jël leen ba ak karaw ga bu dee da nga ko bëgg a jëfandikoo nga raxas ko bala nga koy jëfandikoo yooyu lay wax ci wàllu middi yooyee donte ne ne mu ne bu dee ay donk ak i wey ak i sell loolu moom kenn du ko jëfandikoo loolu mi ngi noonu day waxit ne sib nañu li nga xam ne mooy ñay sell yi cay génn muy ivoire boobu ñuy jël loolu lu ñu sib la donte ne araamu lañ ko mu ne nit wa kullu shay'in min al xinzir xaram amma mbaam xoox moom léppam daa xaram waxad urxisa fi l intifai bi sha'rihi donte ne ne jox nañ ak yombal ci ñuy jëfandikoo ca la nga xam ne mooy karawam ga kon mbokk yaakaar naa liñ jël xaw na bari su dee ne comme niñ ko doon defee rek ñu bàyyi mbokk yi bu ñu amee laaj bu jëm ci liñ doon jàng incha allah ñu jëm ci tontu ba avant ñuy jël beneen bind bu dul li ñu jël nii naam su dee am na laaj bu jëm ci liñ jote jàng nii naam waaleykum salaam. waaw day wax ne sib nañu ko doonte ne ne loole nekkul ci lu xaram xataa ñoom araamaluñ ko soo demee ci yeneen borom xam-xam yi it araamaluñu ñu jëfandikoo loole nga xam ne dafay jóge ci nuñ koy waxee ci ñey yooyee loolu mi ngi noonu bu doonte ne nee na leneen lu juy lu dul ñeya ay bëñam kenn du ko jël di ko takk bu dee dafa medd amma bu dee ne ñay la daf ne sip nañ ko sip nag bokkul ak xaraam mooy soo ko mënoon a bàyyi moo gën waaye ku ko defit deful lu xaraam wallahu subhanahu wa taala alam naam naam bismillah ki nga xam ne dañ koo tëj ñu indil ko loo xam ne ni sàngara la loolee amul droit di ko naan lu dul mu dem ba loru su demee ba xam yegg na xaal boo xam ne nii xam na ne bu ko continuer am mar dana ko rey loolee dara nekkul mu lekk sàngara boobee loolu it dañuy wax ci lekk gi it du rek ne dañ ko dugal ci kaso bi rek indi lekk medd mu lekk waaye fokk mu yegg ci xaal boo xam ne wóor ne ko ne kat lii kat su ma ko lekkul damay faatu su boobaa lay dagan mu lekk ko mi ngi noonu moo tax suñu borom ni lu dul ci koo xam ne nii lo dafa loru gayra baaxin wala aat fekk bewul ci jéggiwul dayo wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam bismillah naam ndax ñi dem ci dëkk boo xam ne lu ñuy rendi xalaal ma nga fa ndax am nañ droit lekk loolu déedéet amuñu droit lekk loolu fi yéeg am nañ leneen lu ñu mën a lekk fi yéeg am nañ leneen lu ñu mën a lekk loole da ngay gis ne amul ñu droit di lekk yàpp woo xam ne dañ koo rendi ca rendi ba xalaalul lekk lu xala lu xalaalul kakal islam may mooy koo xam ne daa loru amul lenn lu mu lekk lu dul lii kese ca xam na ne su ko lekkul loolu mën na ko faat waaye bu dee am nga leneen na doon biskit laam mburu laam lu mu mën a doon amoo droit di lekk loo xam ne nii kenn rendiwu ko mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam naam ala kulli haal naam bismillah waaw ala ala kulli xaal ki nga xam ne dafa nekk ci loru pour problème mu ay location yu demee noonu su dee ni day banque ba moo am kër yu muy leble loolee moom amul benn ixtilaaf ci benn borom xam-xam ci ne daggan na nga dem leb banque bi di ko fay nank-nank ba sa kër jeex fa nga xamee ne nii kay moom la mbir ba nekk mooy yow nga dem leb xaalis ca banque ba ngir jëndi kër ca banque ba da lay jëlal la nga xam ne mooy riba mu am lenn lu ko ay nit di contourner te loolu itamit borom xam-xam yu bari dañ ne loolu naxante la ak yàlla te mooy da ngay dem yow gis sa kër au lieu que nga leb banque bi xaalis pour jënd ko nga xam ne xaalis la lay jox ngay fay xaalis nga dem ci banque bi ne leen jëndal leen ma kër tel xam nga kër gi li muy jaar masalan borom kër gi cinquante millions la koy jaay nga ne banque bi jënd ko lebal ma ko banque bi moom dem fay cinquante millions facturé la soixante millions loolee da ngay gis ni am na ñu koy ubbee ne dagan na waaye da ngay gis ne lu bari ci borom xam-xam yiy wax fekkee problème bi ndax yépp xewuloon bu njëkk waaye ñi ko fekkee tey demal ku mel ne Cheikh Fawzan ku mel ne Cheikh Ousaymin ñoom ñëpp dañ naan loolu naxante la ak yàlla loolu moo kii dem jël xaalis bi directement jënd kër gi ñoo yem su ko defee daal su dee banque moo am ay këram banque am ay otoom lekk ko loolu amul benn muskil waaye yow nga dem lijjanti sa kër ba pare ñëw ni banque jëndal léegi man ma ma ma fay lu ëpp loolu loolu dañ ne naxante yàlla la mu des nag beneen cas. kaa yi ñi nekk biir Europe am na ci ñoo xam ne seen lor daa yegg ci dem nañ ba am juróom doom juróom benn doom amuñu kenn koo xam ne dana leen nangoo luye ay appartement loolee seeni borom xam-xam ya nekk ca ñoom bokk na lu ñu leen di ubbee bala ngaa dem di fanaan ci mbedd mi wala doo xam ne def su boobaa lor moo la yóbbu nga dugg ci cas boobee am maa keneen koo xam ne nii nekkul sa situation loolee amul droit di ko def mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam yow yaa yor sa téere nga ne ko tab- ta- tabaxal ma téere bi loolu yi moo ko loolu yépp ñoom ñoo yem banque daal lim la mën a def mooy mu moom matérielu boppam léegi lebal la ko su doon ne moom banque bi moom moo am la nga xam ne mooy simaam am ay feeram am ay yooyu mu ñëw mu ne la man kat danaa la lebal matériel su boobaa loolee da ngay gis ne dara nekku ci lu dagan la ci cas boobu li ma doon wax sànqit am na ñoo xam ne loolu la ñuy jëfandikoo da ngay dem ci banque bi ne ko ah dama bëgg kër gi nangam léegi nag su boobaa yow nga nga wax ko ciment beeg fer beeg yooyu yëpp loolee banque bi moom amul ciment amul fer moom daal li koy itteel mooy dana fay chèque bi yow nga fay la la la nga xam ne moo ca des loolee am na borom xam-xam yu koy ubbee ay. service microfinance yu bëri dañ koy jëfandikoo waaye loolu laa ne du dëppook ay borom xam-xam li ma bëgg li ma bëgg a wax daal mooy lépp loo xam ne nit a ko moom banque ko moom société ko moom moo ko moomal boppam su boobaa lu mu la ko lebal dagan na waaye kay jël lii lebal ma loolee la borom xam-xam yu bëri ni ak naxante la wallahu subhanahu wa taala alam naam naam bismillah waaw waaleykum salaam wa rahmatulah. voilà ku li xaal doomu aadama bi moom toujours dafa war a jël ay matukaayam. moo di ne ne su dee ne fi nga nekk dañu am produit yoo xam ne dañu bind xalaal war nga it xool ana xalaal bi lan mooy cosaanam lan mooy cosaanam parce que gars yi ñuy nettali ne dañuy gis benn keesu jën ñu bind ci xalaal waaye jën kay sëñ bi xalaal rek la mën doon ala kulli xaal problème bi mooy daal ñoo bari ci Occident bari nañ seeni produit ñu ciy bind xalaal xalaal ndax yéeféer bi moom xalaal ak ñàkk xalaal di jënd jullit moom balaa jënd gis xalaal su ko defee ko nit war ngaa daal boo nekkee ci dëkk yooyu wóorlu ko ba li nga xam ne da nga koy jël di ko lekk te it mbokk yàpp moom da ngay gis ne mooy fa problème bi nekk ndax bu dee yeneen yi amul problème mais yàpp moom la problème bi nekk kon it su boobaa yow fexeel bay di gëstu ba xam produit yi ñii ne dafa xalaal ana fan mooy cosaanam loolu mi ngi noonu amaa nag bu dee ne tamit yow amoo benn doute amoo benn sikk sàkka te ñii ñoom ay ay ay ay ay ay chrétien lañu te xamoo ne dañuy rey reyin boo xam ne nii reyin boo boo boo bon la su boobaa moom da nga am droit lekk ko tant que sikk sàkka amul ndax te amu ahlul kitab xillun lakum waaye dafa am lu lu gaa yi di juum mooy taamu ahlul kitaab xilun lakum ñu jàpp ne kon lu chrétien rey rek dagan na déedéet xatta jullit ne yow am na façon reyin boo xam ne bu ko reyee daganul da ngeen noonu ñii nga xam ne dañuy ñëw ci poulailler bi yor seen yat rek tiim ganaar yu tuy tuy tuy tuy tuy tuy jël dugal ci kàddir gi loolu même bu ko jullit defee daganul ñi nga xam ne nii dañuy jël ci ay machines yi nag bi day ñëw rek ñu dóor ko benn poids tel bu ko defee mu daanu ñu machine bi ñëw daggate ko loolu même bu ko jullit defee daganul kon chrétien wala juif su rendee loolee dagan na comme jullit waaye am na façon reyin yoo xam ni jullit ak yéefar yépp ci yem mi ngi noonu wallahu aalam naam naam bismillah mi ngi ci tali bi waaw waaw ngeer ngeer mook liñ doon jàng rek la cosaanu ngeer dafa xaram lu dul ngeer boo xam ne da nga koo def ngir teggi lor defoo ko ngir jël àqu keneen waaye da nga koo def ngir teggi lor ñoo ñee nekk ci tali bi tey jii nga ñëw mu wóor na le ne yow kat kii dafa la arrêté ci loo xam ne nii du yoon ca bala nga fay jógee da ngay joxe dara la ngay la nga koy jox ngir mucc loolee kenn du ko tuddee nger nger mooy nga jox ko nit ki ngir jël àq boo yeyewut waaye bu dee yaa ngi koy def ngir teggi lor loolee da ngay gis ne islam du la du la du la toppe loolee am maa ka koy jël nag moom quelque lu lu mën a doon moom xaram na mu lekk ko moom waaye yow mi muy jógee nag la ñuy xool lan moo tax nga di ko def ndax da nga koy def pour jël àq boo yeyewul wala da nga koy def ngir tegg lor guñ la nar a teg bu dee tegg lor guñ la nar a teg loolee dara newu ca wallahu subhanahu wa taala alam naam naam waaw loolu day moom lu am la doonte ne ne ñun ñëpp ñoo boo ko xam ne xew ci réew mi moo di ne ne am na nooy jëfandikoo ak ñoom mën nañ la tuumaal ci leneen loo xam ne yow defloo ko ñaareel bi itamit mooy léeg-léeg nga gis ñoo xam ne dañ naan yoruñu kayit ca loolee da ngay gis ne problème lu lu lu tar la daal almuhim daal la gënoon mooy ñëpp dëppoo woon bañ a dëppoo ci corruption bañ koo def ci benn façon defin waaye nag lu dagan ak lu xaraam buñ koy wax moo yow boo amee ses principe ne man kum mën a doon duma ko ngir mukk am na ñoo xam ne lu seen principe la waaye am na ci ñoo xam ne nii lal la la waaji laaj da nga dem ba ñàkkaat ci fukkam may fàttali suma benn mbokk bu baax bu ñëw fii Cheikh Ibrahima Kane Bilal nee na dafa am dossier bu may toppatoo ci benn dëkk ci dëkk Sénégal yi bëgg maa tooñ nee na bi mu ñëwee ñu ne ah dossier bi ku joxewul deux mille du sa jot de mu ne deux mille mu ne man de du ma joxe dara mu ne waaw baax na waaye nee na jaral na ko aller retour dëkk boobu mujj na saa ñàkk fukk lu mu waroon a ñàkk ca loolee. loolee bu ko defee ci volonté boppam loolee lu lu lu lu baax la parce que bu ko ñëpp defoon dañuy découragé waa ji waaye nag yow bu dee ne yow def nga sa ak lii am nga ci droit nga ñëw teg ko mu ne la déedéet yow lii da ngay da ngay joxe lii su boobaa ngir teggi lool l'islam may na la ko waa ji nga xam ne da ngaa ñëw sotti départ rek mu ne la arrête nga ñëw mu ne lay excès de vitesse loolee mi ngi noonu ku ne xam ne loolu yàgg naa am yow ci xam nga ne li ngay def moom defuloo ko mu ne la fokk nga def lii loolee bokk na bindal ma kayit nga dem nga fay loolee d'accord def nga lu baax waaye nag bu dee am nga loo ko mën a jox ngir teqali ko moom it dañ naan ci wàllu sharia te it waa police man war a sharia laay wax de waxuma seeni loi ci wàllu sharia dañ naan la loolee dagan na wallahu subhanahu wa taala alam naam waaw ah ah waaw bismillah waaw waaw waaw waaw bu dee ci biir dëkk bi sax léeg-léeg mu mu yomb waaye daal ala kulli xaal waaw mi ngi noonu mi ngi noonu mi ngi noonu sant waaw ah waaw exactement loolu loolu ala ko waaw mi ngi noonu mi ngi noonu waaw mi ngi noonu ala kulli xaal ñu xam ne koor lañu boo xam ne am na ci vraiment ñu baax lool ñu jub lool ci homme de tenue yi waaye nag homme de tenue yi xam ngeen ne am nga ay caamin seen biir waaw loolu daal la la bëgg a wax ci wàllu googee waaw mi ngi noonu waaw ala ala ah waaw.
ni ko da nga indi këyit yi nga xam ne moom nga feete kataataan su kumba si wala nga nga delloo ko foofa wala nga jox mu seen ah mais mais ah mi ngi noonu ah day day day day day day day ma- moom kay ala kulli xaal daal ci gàttal rek daal jafe nañoo mucc caamin yi si ñoom jafe nañoo mucc waaw yéen waa police waaw ñu baax ngeen nag parce que yéen a ngi ci réew mi waaye buñ la xoolee man benn waay wallaay ñëw na fii ci jàkk ji fii na ma imaam damay summi sama tenue douane ñu waxtaan waxtaan te gudd te yu demee noonu rek la loo xam ne ñoom ci seen biir xam nañ ko. tey jii xo kii jël benn camion def ko sarse ko ba mu fees nga ñëw fay sa lépp droit ci port bi nga ñëwee ñu ne la kat camion bi da nga koy décharger lépp xoolal mbokku coono boobee loolee da ngay gis ne ñu demee noonu daal ci gàttal daal li ñuy bëgg a wax ci ci tënk mooy koor yooyu yépp dañoo am bu baax njëriñ ci réew mi képp ku ca sellal yaa ngi def lu baax waaye nag képp koo xam ne nii sellal googee jëfandikoo ko ndax li ñuy def ni ko sharia bañe noonu la ko loo réew mi bañe képp koo xam ne nag dañ koo teg loo xam ne nii wóor na ko ne lii day moom yeyowu ko te mu nar a nekk ci moom ak lor loolee la ñuy wax ne la nga la nga fay joxe ngir mucc ca loolu bu dee ci wàllu sharia moom dañ naan la topp ñu la ca dara ci wàllu sharia donte ne ne bu doon ci loi réew mi it mën nañ laa topp waaye comme ñun sharia la ñuy waxe dañ ñaan ci wàllu sharia topp ñu la ci dara mbokk jàpp na kon mi ngi noonu yal na yàlla laabal suñu réew ndax it wax dëgg yàlla lu demee nii di xew ci dëkk yi léegi la nga dem ci dëkk yi yeneen yoo xam ne nii xalaatuñu sax di ko def loolu it ñun ñooy woote wa diine ñun ñoo waroon a jiitu ci loolu yal na yàlla laabal ñu te wërsëgal ñu wërsëg wa dagan ca tey wallahu aalam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain di miraas moom benn téere boo xam ne dana benn doomam la ko mayoon te def na ko ci turam loolu dañuy xool ndax bi muy dund la ko ko may nga xam ne moomeelam la def ko ci turam bi muy dund la ko ko may wala def ne bu ma dee nañ ko ko jox su dee ne bi muy dund lañ ko ko may dañ naan doom ji di moom na téere bi léegi nag ñu xool baay bi la mu def lan moo tax mu def ko bu dee ni am na ay njaboot gu mel na doom bi te defalu leen lam defal doom bi dañ naan baay bi de def na ak jeng waaye nag du tey doom bi moom moom moom téere bi baay bi nag aussi mën na am xëy na loo xam ne ni ba mu koy def ak jeng taxul am na ay doom yu mag ñoom ñëpp am nañu seeni kër tabax nañu seeni kër kii doomam la amul dara mu jublu ci loolu nga xam ne li mu ko defal nii bu doon ñeneen li mu defal leen ko lu mel noonu da ngay gis ne sharia du ko ko toppe waaye daal ci gàttal daal bu dee ci wàllu miraas bi moom li ñuy xool rek ndax da koo def testament wala da ko koo mayoon mu leer bu dee testament nag islam du ko nangu du nangu loolu ndax képp koy donn amoo droit defal ko testament mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam waaleykum salaam wa rahmatullah mu ëmb mu fase ko après waaw après waaw ah kay soxna si bu dee da nga fase soxna ci ëmbam idda bi day continuer ba baa muy am doom même bu doon neuf mois lay durer ëmb bi day continuer ba baa muy am doom su ko defee moom iddaam mi ngi dépendre ci wasinam bu ko fase woon tey seede yépp seede ne fase na ko trois minutes soxna si matu dem am doom idda bi jeex na bu dul loolu neuf mois dina ko toog loolu kon moo aju ci ci wàllu googee mbokk mi ngi noonu waaw waaw képp koo xamee ne nii da nga koo fase fase bi bu dee fase la boo xamee ne nii dafa ànd ak ëmb yaa koy financé ba ba ëmb bi jeex même bu doon da nga koo fase ñi ci fase dafa wasin pare ñu doog koo fase ah boo boo même bu wasinee pare mu doog koo fase it ku mel noonu dafay iddawu day iddawu trois règles te bu boobaa mën na durer sax un an parce que il faut mu dem ba commencé gis règle ba doo trois règles loolu moo tax ba da ngay dégg mu naan xaaral rek ëmb bi rek moo ma jaaxal waaye buy wasin ma koy fase boo ko niree fase rek fase ko ci ëmb bi parce que bu wasinee nga fase ko moom problème li lay doon boo xam ne balaa idda bee jeex yàlla moo xam am na jigéen ñoo xam ne tant que ñu ngi nàmpal duñ gis règle te il faut mu dem ba commencé gis règle ba gis ñu règle indi bi doog a jeex waaw loolu loolu loolu mi ngi noonu xam naa suñ ma mënoon may rek ñaan yàlla yàlla na yàlla déppala ñu ak ngërëmam fi dunia wal axira